ñëw ñu ànd liggéeyal sëriñ bi rek mm-hmm. ndax li ñu bëgg mooy ndamul sëriñ bi mm-hmm. mel na ni fu waay mën na yaa ngay wax waxi sëñ bi sëñ bi nag mënuñ koo xaaj ñaar mm-hmm. waaw kenn kenn ba tax na moom day day sànni ak ñaan ndimbal ci ñëpp waaw ñun sëñ Tuubaa dimbali ba boole xol yi. fexe ba lépp ànd nekk benn loolu du ma noppi di ko di ko dagaan sëriñ bi te ni may dégg te rafet naa njort ci ni loolu dinaa ko moo tax nanu nanu faut faire très attention nanu yaakaar ñu ñëpp ñëw ku bëgg a ñëw mu ànd rek na nga xam ne ñu ngi lay tàllal loxo yàkkamti nañ la nga ñëw mu ànd loolu bu ñuy noppi di ko wax te loolu rek a nekk ci ñun amuñu yitte ci leneen lu dul liggéeyu sëriñ bi waaw liggéeyu sëriñ bi rek la ñu yitte nu ñu fexee rek ba ñépp xam ne mooy sëriñ Sall waaw mooy moom moom ñëpp xam ni eh, sëriñ bi defal na ko lu mu mës a defal kenn yëfam yii nga xam ni xar na ci tànk tubéyam tawte na ci naaj na wax na ci ba xoti lu leen teg topp ci waaye bu ñu sañoon defe ñu dara du ci metti suñu yitte mooy fexe ba lépp baax waaw maa ngi ñaan ñëpp nañ ma ci dimbali te jàppale ma ci Sëriñ Muntaxa Mbàkke xalal nañu yoon dimbali nañu ba mu dimbalee mooy ba mu jëlee seen mbéy yóbbu ko Tuuba booba la ñu dimbali yoon woowu mënu teg nañ ci ne wax nañu ko guddi wax nañu ko bëccëg nanu rafetal ànd bi nanu rafetal doxin bi nanu nanu delloo lépp ci sunu nanu nanu moytandiku ay tere di def loo xam ni sëriñ Muntaxa day ne Touba di dégg ni ñu ngi fii di def lu dul noonu loolu de ëpp naa def ah. rek waaye mbooloo mi nañ ko dimbali ci ngor gi ñu war a ànd ak sëñ Muntaxa ndax moom gore suñu digal moom rek la mu war ndax jëlee nañu foo xam ni defal nañu lu ñu mënul woon suñu bopp ba tax na lépp lu koy yàq lu ñu jàpp ni da koy yàq wala day yàq wala day xajamal loolee day nañu fexe ba bu ñu ci kenn dégg nanu nanu nanu nanu dellu ci njàngaleem Sëriñ Tuubaa nanu nanu fonk xasaay bi te loolu sëñ Béthio sunu sëriñ ba ci loolu rek la ñu teg kat jàngaloo nun leneen lu dul bëggloo nu sëriñ Saliou ñu ko ñu di diñu ko woyloo diñu ko kañloo fu fu mu ne di ñu ko waxtaaneloo di ñu jàngaloo ay xasaay di ñu fonkloo gàmmoom ci loolu rek la ñu sëriñ Béthio tegoon teguñu ci leneen keneen ku def leneen yaa def leneen kuy def lu ñuy xarat yaa ko def waaye sëñ bee ko def loolu am njàngaleen lu wér la woon jamono nag day soppee yëf yi eh, saa su ne eh, day day day day jamono day dem ba day am lu mu laaj nit nag da ngay ak jamono fi nii li nu war mooy mooy mooy mooy defaraat toogaay nanu doon ay modèle nanu doon ay murit ñun ay murit lañu te murit buñ ko dee wax Serigne Touba tax kon ñun mënuloo def lu mooy njàggaleen Serigne Touba maa sant bu baax dëgg na dëgg na maa ngi maa ngi bëgg lool. yàlla na fi yàgg. maa ngi bëgg. ku lay xaar yàlla na xadi. mu waajal ab siyaar. jëmee ko ci Serigne Cheikh. الحمد لله alhamdulilahi rabbil alamin maa ngi sant ci ma ne leen dañuy waaj ab siyaar ci sëriñ Cheikh ngeen tontoo mel nii ngeen loolu de loolu de bëgg naa ci bëgg moo maa ngi ñaan sëriñ Saliou fekk leen ci doole biir ak doole nekk ci seen aajo yéen a baax yéen a baax suñu bopp Serigne Cheikh nan ko doyloo nan ko déglu tàmbalee ci moom nga yem ci moom nañu way nañu doon ay murit ñun Serigne Cheikh ay suñu bunt ci Serigne Sall te suñu jàmbaar jëf suñu sëriñ bi da koo jébbaloon boppam kookoo xamoon lu ma lu nekk ba Serigne Saliou defee secret bi keroog ba muy ànd ak man di jëbbal boppam Serigne Cheikh ci kanam àddina la woon ànd ak moom ànd wu sell bu rafet daan dem Daaru Salaam Murit maa ngi koy fàttaliku tawatam bi jëkk en 2009 Daaru Salaam Murit la jóge ñëw Madinatu Salaam fa la jëkk a defee AVC ah, hmm. ah, waaw maa koy kon kooku ak murit saadix kookoo xam lu baax te daan ko def kon maa ngi leen soññ ci ñu jëm ci Serigne Cheikh fas yéene koo liggéeyal nañu waaj kon Cheikh mooy mooy borom xelkom nee nañ ñu leen demee xelkom ànd bi bu wéree te mu gis ci ñun pëste danañu delloo xelkom te am luut nag xelkom fekk kenn sàlluwu ko jërëjëf ngi bëgg lool maa ngi bëgg lool waaw maa ngi bëgg lool kon nag gaa ñi maa ngi maa ngi bëgg sant bu baax c'est yi mbokki taalibe yi maa ngi santaat sëriñ bi bu baax maa ngi dugalaat sëriñ bi bu baax ku war a tuub amul Tuubaa rek lay dox yërmandeen ci ci sunu jëmm yi nga xam ni sànni saa suy wax mi ngi wax dayob seen béy ndeysaan baax gi mu baax dem na banaan sax bi sëñ Béthio sunu yoon nekkul ci ndax sëriñ Saliou te mooy sëriñ Touba yoonam a nga ca walaay daa baax rek moo tax nañu rafetal doxin bi nañ leen doon ay taalube waaw nañu nañu murite xasaay ci sëñ tubaa yi nga xam ni ni mu neexee di ci sëñ tubaa wax lépp li ci sëñ tubaa def ci ci ngëneel nga xam ne mën nañuy toog fii ba six heures du matin hmm. gaa ñi di ko jàng te sëriñ bi dimbali nañu ba defal ñu ci suñu biir hmm. ñu mokkal hmm. ñu mokkal ñu ko xam man ko daan ko defal sëriñ Sall am nañ fi ay werekaan yoo xam ni ñu ci mel ni ay Ibrahima Diagne ñoom Babacar Seck ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom Tawfekh Mbaye ñoom Papa Gueye Mbiraay ñoom Khadim Ndiaye jaaji jëng nga xam ni way sëriñ Touba kenn maam Moussa Ka ca ca ca mu sëñ Jaxate waaw loola lu lu dagan la lu baax la waaye nan ko sellal nan ko rafetal yenn folklore yi ñu wàññi waaw oui folklore bi bari na soxna yi gis naa ni maa ngi leen di félicité gis naa ni léegi ñu ngi ñu ngi ñu ngi teg di bopp yi ñu ngi koy ñu ngi koy musóor di ko defar waaw nag nag bu leen ko bàyyeeti day leen muuru na lépp yees doxin doxin wuy yees li sëriñ bi bëgg nañ koy def waaw boo deful li sëriñ bi bëgg nooy amee ngërëm boo bëggee ngërëm da ngay def li sëriñ bu bëgg waaye boo ko deful doon ngërëm kon yéen jigéen ñi maa ngi leen di sant gis naa ni am na sax ci benn benn yoo xam ni waaw waaye ku fi ñëwati na ngay teg sa bopp laa na muur digal naa leen loolu daal moom laa bëgg damaa bëgg ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu waaw ñu ñu ñu am une complicité man ak yéen ñu ñuy ñuy waxtaan di gindikoo bu ko defee nawoon rek lay demee waaw de telle sorte que maa ngi leen di sant wax ji lu mu gudd gudd lu mu gàtt gàtt du doyal jàkkaarloo yéen ndax yéen man de lu ngeen ma bëgg maa leen ko raw. ndax li tax mooy da ngeen a bëgg lu dul sëñ bi te man jàpp naa ne kenn gënu maa bëgg sëñ bi déedéet man nit on ne peut pas se nit mënu gën a bëgg sëñ bi c'est pas possible moo tax gëmewuma leen ñëpp ñëpp yéen ñeneen ñi ñàpp sax. am naa nu ma demee ak ñoom sax wallaay billaahi barke Serigne Saliou Mbacke ñoom ñëpp laa yem ñoom ñëpp laa yem bëggaluma kenn lu dul safaan jàmm laa yéen ñëpp ndax xam naa ni sëñ Béthio rek la ñuy te fu waay ne njabootug sëriñ bi nag ñooy sama njaboot ah, waaw ah ndeysaan lii sëriñ bi di wax keroog ci télé bi mel na ni ndeysaan am naa lu ma yëg ci sama xol ah, waaw ndax yéenewu ma kenn lenn lu baax ma sañoon yépp am lu baax ba tax na waaye nag sëriñ bi def na ci ndox mu sedd ndax jéggal na ñëpp yàlla na sëriñ bi def njéggal googu tàbbi ci xol yi ba ñëpp ñëw alaare maa ngi bëgg lool nag di sant ñëpp seen siyaaru tey bi daal na ngeen xam ni neex na alhamdulilah Lamine mbégte fii nga fi tàbbal Serigne Saliou yàlla na la wax dugal nga fi mbégte tàbbal nga ci xol yi nañ daan siyaare Serigne indi na ci man ma bëgg a siyaare ji Serigne Cheikh ànd ah, waaw kon nañ ko waajal dinaa jàpp date bi ginnaaw bu ma ci waxtaanee ak moom ndax damaa bëggul a def dara loo xam ni yëgaluma ko ko danaa dem ci moom danaa ko sàkku ci moom danaa ko ñaan mu may ñu ñu siyaare si bu ko defee ñu mobiliser mbooloo mu takku la ñuy dox nañu waajal ay yëf ay addiya noonu la ko sëriñ bi daan defale sëriñ Sall. pagans yi. ay bagages ah, waaw ne gàddu bagage bu ko defee ñu def ko ab dimanche. Touba bu fa kenn xar. ñu waajee jàmmatul Mahwa. dox dox ñëw Touba ca pencum Serigne Béthio dox wutali ko. café café ak suukar si nga xam ne moo jëm ci daaraan ndeysaan biñ ci waxee moo bari yërmande bi ma bi ma bi ma ko waxee ba ma delluwaat fa di yëglu yónni sëñ Babacar Mbaye ni seen Babacar boo demee neel sëñ Cheikh café boobu moo doon wax kim la waroon a booleel na la booleel moom mu yónni sëñ Abdou Khadim daal ne waaw ah, moom lañ dama koy ñeewante lool ak màggal gi jub xam naa dañ bàyyi ba màggal gi wees bu weesoo mu doog ciy tàppi màggal bi nag wees na dëgg la gàmmu gaa ngi fi waaye ndigalam ni moo loolu benn ba tax na maa ngi koy yëgal bokki taalibe yi nañ ko waajal jëwriñ yi nañu organisé wu sëñ Babacar na nga delluwaat ñu wax la nu muy demee bu ko defee bu ñu fi dellu soitee samedi ñu xayma boo ko defee ñu daal koy jëf dóor ko mu daanu buñ ko dóoree mu daanu dana fekk ma wax mu jox ñu bis buñ koy siyaare buñ koy siyaare bi yóbbaale waaw waaw kon nag maa ngi maa ngi sant bu baax jërëjëf labin social bi neex na. Ah, am nga ndam. jërëjëf Thioune ah, am nga ndam. ñu ñaan Serigne Saliou yokk la. yokk say xéwal te yokk sa man. te ànd bi sax faaw. amiin amiin Thioune. jërëjëf Serigne Saliou. waaw. jaageen jëf jërëjëf. am na am na beneen daara buy siyaare. ban daara am na daara buy siyaare. dama doon bañ jóg.